Mm. alors voilà. euh, vous êtes engagé par IAM. Ah oui. Euh, pour euh, donner des, des, des mm. le ministère de l'enseignement supérieur dugg si. IAM a été obligé euh, d'arrêter li nga xam ne moom mooy la la la la la collaboration. Mm. loolu benn la ci ci ci mbir boo xam ne dund nga ko. mais à part ça est-ce que am na ay brimades ay xeetu pression yoo xam ne euh, euh, dund nga ko et qui t'empêche aujourd'hui de t'épanouir waaw euh, man wax dëgg yàlla xam nga man comme ni ma la wax man nekkuma di xool kan moom may déglu kan moo ma dul déglu man xam nga une seule fois y a eu quand même des informations qui ont fuité sur moi voilà dem naa si benn émission mo wax ne loolu vraiment il faut pas utiliser l' état contre les personnes man bu ma génnee si état ba léegi mosuma utiliser dara contre que personne kon kon n'utilise pas les moyens de l' état contre moi waaw mos nañu ko def nag mos nañ def nañ c'est-à-dire les gens ont une fois utilisé yoo xam ne xam naa loolu ñu ko jëlee l'a pris sur mon wala am na ku ma jege koo xam ne si moom lañ ko jëlee te yooyu man jàpp naa ne waruñu ko def waaw xam nga état bi ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà que chacun essaie de respecter les autres man je ne cherche pas à fouiller la des autres que personne ne fouille ma vie li ma yor du man je n'utilise c'est-à-dire il ne faut pousser les gens à vouloir loolu man yaakaar naa ne jaru ko quoi façon man wëruma ku may ku may xool ak ku ma dul xool parce que man je n'ai rien à gis nga man numéro téléphone bu ma yor depuis bu may def seconde boobu laa yor ba léegi changé wu ma numéro téléphone bu ma yoroon section de recherche moom laa yor ba léegi parce que damay bañ saa ñu ne changé na numéro day nëbbatu parce que man lépp si li may def si lu leer nañ laa koy def man du ma ban du ma def banditisme du ma def dara parce que man dama bëgg sama. mais mais après da nga dem inscrire. Hmm. université à à à à l'université xam nga madame man comme ni ma la wax man si eh, ci position de d'affrontement man sama état lay servir te moi je sais que eh, état bi tey am na si ñoo xam ne ñu ngi si ay position yoo xam ni bu ñu leen libéré gis nga quand ça va changer c'est après que vous allez comprendre gis nga eh, j'aime bien donner l'exemple de Sidi Lamine Niass xam nga tey dem na mais on sait que il s'est battu pour les libertés de la presse gis nga tey bu régime bi demee ba changer et qu'on laisse parce que ça peut changer ça peut continuer comme ça peut changer yàlla rek moo am que les ouvertures kon a dans les lois mooy ces prérogatives qu'on donne au procureur au préfet et autres gis nga si quelqu'un vient et qu'il veut faire une revanche vous allez comprendre pourquoi des gens comme Guy Marius Sagna se battent pour que ça change man c'est ça mon avis dans ça sincèrement man jàpp naa ne tey il faut qu'on pour que eh, ces lois et yoo xam ne dañ fi nekk sa donne des ouvertures à toutes les autorités tey bu ñu la bëggoon toroxal ñu toroxal la bu ñu la bëggoon toroxal ñu toroxal ma ñu vérifier ko de telle sorte que tey que le juge puisse avoir une indépendance qui fait que tey si madame euh, Ndour a un souci qu'elle puisse savoir à l'avance bu ma demee j'aurai la vérité xam nga man xam nga je ne dis pas que. les juges mais démarre par le gendarme qui vient enquêter. oui loolu madame. <laughs> madame c'est à tous la wax non non. Ah, man c'est à la gendarmerie c'est au commissariat. loolu laa la monte. gis nga loolu jour c'est que j'expliquais à Pape Alé Niang gis euh, l'officier de police judiciaire il faut que mu libre gis nga ñu créer euh, l'institution du ce qu'on appelle un juge de liberté est-ce que vous me permettez de développer sur ça. Mm-hmm. xam nga lan mooy juge de liberté xam nga procureur. code de procédure pénale di ko jox lu tudd opportunité de poursuite mooy moom bu ko neexee topp la bu ko neexulee du la topp bu ko neexee aussi am na infraction yoo xam ne bu ko joxee juge d'instruction bi da koy obligé ne ko defal ma ko mandat de dépôt amul kenn ko si mën a opposé wu ce qui fekk tey bu enquête amee bu ñu ñëwee ñu ne madame Ndour moo def lii da ngay egg rek juge bi ne ko euh, le procureur va dire en attendant l' enquête mettez madame Ndour pour terrorisme pendant cinq ans yooyu doo génn donc fokk ñu créer benn institution kenn ku tudd juge de libertés boo xam ne day toog koo xam ne kooku bu ñu defeeree nit day ñëw si moom même si le procureur veut le faire sous mandat de dépôt fokk ñu dem statuer audience mu ne kii gendarme yi nii lañ ko jàppee mais nag aussi il faut que gendarme yooyu ñu détaché leen si parquet parce que parquet boo xoolee mooy def mandat de dépôt ku ko ne ba pare dañu leen di naan ñoom ñooy contrôler gendarme donc foog nga jël nga créer le juge de liberté là ba pare nga jël gendarme yi nga déplacer leen ci juge de liberté bi. et ñu bañati euh, répondre. dépendre des ordres du procureur. waaw mais comme c'est le cas actuellement. non non waaw mais le procureur peut leur donner des instructions c'est-à-dire il peut dire arrêtez-moi telle personne mais bu nee arrêtez-moi telle personne qu'il n'interfère pas dans l'enquête que l'enquête soit. encadré par le juge d'instruction léegi moom bu ñu ko déférelee nit ki aussi pour mu mandat de ko que le juge d'instruction et que le juge mu taxaw nit ki taxaw avocat am taxaw mu xool est-ce que mun na parce que loolu jugement la nit boo xam ne mun na la def mandat de dépôt cinq ans ba pare cinq ans yooyu mun nañu dem def instruction ba pare ñu ne defoo dara mais loolu c'est une perte donc il faut au moins qu'on ait ces trois paliers là le premier palier mooy ñu am un officier de police judiciaire qui est libre koo xam ne mun na def euh, enquête am en toute liberté koo xam ne parce que le procureur est juge et partie bu fekkee moom amatul pression parce que le le juge des libertés aussi ko jox pouvoir trop dañu koy naan rek na controler donc bu paree bu déféree waa ji parquet balaa mu koy mandat de dépôt le juge d'instruction et le juge de des day décider bu ko décider parce que yaakaar naa un officier de police judiciaire même bu dëngee mënul dem ba pare dem encore parquet mu examiner ba pare mu dem juge des libertés ba pare ñu dem encore juge d'instruction bu fekkee quatre piliers yooyu yëpp ñu am justice vraiment mënut il faut il faut désespérer non. mais euh, bi nga demee inscrire à à, à l'université ouais, ouais. euh, vous avez fait le diplôme vous l'avez terminé. vous l'avez eu. oui xam nga man euh, euh, bu may dem université c'était avant dama bindu woon dama jékki-jékki rek ma ne xaaral ma bindu ji parce que ma continuer parce que j'avais discuté avec un colonel mu ne ma boo demee ba nekk colonel boo amee ay diplôme tu as plus de chance peut-être. Euh, d'exceller ko rapidement di nga am ça di nga intervenir di nga am ça di nga di nga mën a def leneen lu dul armée parce que di boo demee ba retraite mun nga intervenir pour servir ton pays mais il faut avoir l'expérience vous donc loolu bu ma bu ma demee bindu ji dama bindu ji peut-être six mois après m'a radié léegi nag bu ñu ma radié dama dem après ma concentré aussi tout le temps damay remercier vraiment le professeur Mamadou Yaya bu ma ko fekkee foofu mu ne ma capitaine vous êtes très moo tax man dinaa la accompagner il m'a accompagné comme un étudiant. Et vous avez eu le le le, le, le master 2 en relations internationales. En relations internationales. Oui, oui.